Amen. Amen. Father, ni waxta ak yeen tey ñen ko ko am solo ci bisla da moy al aabu fi bisla mboko ci bi bisla dina ko sante yalla def leen ñu modernisé lu jiit suñu takkandeer yi te ñu suñu yaram yi feeñ mu xamal ñu ci islam yi suñu nabi sallallahu alayhi wa sallam ne ruub yi dañoo mel waxu yàlla ji di alquran karim moo si gën de jub bu ne jub yeneen sa nga bàyyi leen di jëwante seen biir leen seen jëwante su mën a xaar kita boleh kita ada mana sakti yang pun dengan kita. Mana mana yang kita dengan baik pun kita dengan baik ini. Lupa mana tu? Kita yang sama dengan Allah. Dengan sama dengan kita ngëneel arab ah, amul ngëneel ci kaw Alxuraan dañu ko def ku ñuul dañu ko ku xonq ku dul ci ragal yàlla nga ngay gàtt ki ngeen ci yéen mooy ci la ragal yàlla muslim la génn na jël ci ak wér mu ne la ci sama sama nee na bu leen di ñaan tey bi ñu leen wax bu leen di ñaan punya oleh sendiri itu. Dua itu dari makanya apa dia yang punya hukuman dan perlu apa yang harus dia muda lebih mana boleh jaya cipu, jaya puno. Kita mungkin dia tak. Nenya berapa jaya? Kalau pun mak anak pun sudah boleh berapa jaya? Kalau tak, nak beli berapa? Mereka yang jullit ko tooñ lu ko toroxal lu ko xeeb yeneen bi nag ragal yàlla fii la wax ko ñaar ragal yàlla fii la daal dëgg loo xam ne joxe dëgg maanaam ragal yàlla si dëgg si xol lay mu ne jullit bu ne na xam ne lépp jullit dafa aar ci moom moo xam jalan nak buat perang punya sakit punya ambil dia usmin dulu saya punya kena satu punya kalau nak pun juga jadi satu punya sebab Allah ini yang nak jadi unik Kerana dan kami ini jawab yang menyampaikan salah satu nama. Mungkin ini jawab waaw 今は